ci bis bi jot so ni ñu ëppantee noonu la ëppantee fii ñu toll di def ci àdduna ak li àdduna weesu kon loolu mooy axiru zaman mu dellu ne mab'asi wa qiyaamu saati hakaza waxtu wi ma suñ borom yóor na ci jaam ñi ak ba ba saa di taxaw nii lañ demante baaraam bii ni mu sufee baaraam bii noonu la sama dikk ci jamono ci li àdduna weesu ak li ñu jëm àdduna dal di war a jeex tukki noonu la ñuy nii jamono yi dikkam ak jamono yi taxawu saa mi ngi sutantee bi njaari baaraam yi mu joxe tegtal yu bari jamono boo xam ne nit ñi dañuy bari lu leen occupé lool kenn du am jàmm kenn du am jot foo toll yaa ngi ci dem ak dikk yaa ngi ci xalaat yaa ngi ci war a dem béréb sàngam yaa ngi ci jëf sàngam mbir yi jaxasoo yu sos yi nga xam ne nit ñi mii ñu ko woon démb bër ci démb fees dell jamono xalaat yu kenn mësula am nit mësu koo waxtaane mësula dugg ci xel fees boppi nit ñi ñëpp di ko dégg di ci teg seen bët di ko jàng di ko dégg fu nekk di dajeek moom fu ñu toll jublu gi nit ñi jublu ci dajale adduna muy dajale alal wan gannaaw bu ñu wan gannaaw seen ëllëg wan gannaaw bi ñu wan gannaaw xale yi ndaw yi soog a jóg di war a dugg ci jamono boo xam ne jamono bu tiis la bu ñu war a fàggul ndax ëllëg ñu amut mucc yoon wi yàlla xot ci woon wan ko jàmm ñu war ci jaar ba mucc ñëpp wan ko gannaaw ñëpp wàcc yoon wi yàqute daj kapp suuf si ñiy yàq wër adduna lépp ba fàtt ko fii daj jamono bu lëndëm boo xam ne lépp luy yàq dafa sawar lépp luy defar tàyyeel liy woote jëm ci ilhaad muy wedd yàlla fees dell jamono bi fees dell boppi nit ñi nekk ci mbedd mi nekk ci biir kër yi nekk lal yi seytaane toll fu mu gën a farloo fu mu gën a amee kàttan fu mu gën a bare njaboot du nelaw du yendal du fanaanal dëkk ci yàq rek ñu tuddee jamono jooju nun ñu xamul te sàggal te bëgg àdduna ñu tuddee ko jamonoy leer jamonoy électricité jamonoy électronique jamonoy avancé jamonoy civilisation jamonoy jiitu jamonoy développement ñu tuddee ko jamono turu baax na ñu tuddee ko ko di nax suñu bopp te seetuñu li xew doomu aadama góorgóorlu ba nag jaww ji di seeti weer wi dem ci biddew yi ko gën a sawee di dellu si yaxal ab nosam di wët nekk jur fu ne mu sañ faa dem njaxas li metti ci àdduna bu lëndëm boo xam ne dafa mel ne biir géej duus yi ni ko suñu borom misaale aw kazulumatin fi bahrin lijjiyin yaqshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din ida axraja yadahu lam yakat yaraha mel ne ku nekk ci biir noor ba ci biir géej duus seete la kaw woowa duus yeneen seete ko kaw woowa duus niir wu ñuul fukk seete ko kaw woowa niir niir wu ñuul fukk seete ko kaw mu nekk ci biir guddi boole lëndëmi duus yi lëndëmi guddi gi lëndami géej gi lëndami niir yi bu yëkkatee loxoom du ko gis ñu toll ci jamono bu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen fitnatun ka qita'i layli lmuslimi la takadu tarifu lmuhaqa min almuqti yaxdu fihi almar'u muminan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi muminan wa yusbihu kafiran wal iyasu billah yonent bi sallallahu alayhi wa ne ay fitna yu dajaloo yu bari yu lëndëm tëru yu ñuul kukk jublu ne ci àdduna melne ne daggi ci gudd yoyu dajalo do xamé ci nek ci deug ak ci ne ci sel do xamé ci jub ak ci dëng do xamé ci jaar ci yoon ak ci ci jaarul nga xamné do adama aadama dana xëy jub nga ngëma mat mu gont di yeesal bu mat sëkk dana gont jub jullit bala biyoo yeesal mu nek ci yeesal ngir jaxasoo aduna bu mu jaxasoo ak yak du metti ci dajale bi mu dajale aduna do adama nak kattanu nature bi yëpp li nga ko waxee woon sànq def ko ci disposition di ko liggéeyandoo doomu aadama di taxawaalu ci biir gox asamaan yi taxañ gox yi fa gën a sori ci penk ak fi gën a jóge ci sow fa gën a sori ci sow mel ne benn la lu ñu wax fee ca ka gën a fa gën a sori ci penk ka nekk fa gën a sori ci sow di ko dégg di ko gis di wax ak moom na mu ko neexee doomu aadama fexe ba ci farloom googu ak xam-xamu adduna boo ko yàlla jox mu supprimer distance ci dégg ci gis ci wax doomu aadama fexe ba mën a ubbi bopp nit seet yuur gi la nga ci xam ne neexu ko mu dindi ko teg fee nit ko mel na ko neex ak lu xam-xamam bari bari lu mën mënam bari bari mu mën koy sant la ko neex mu di ko def te du ko sañ bañ fexe ba luy dund nekk fu gën a sori ci tenku leneen luy dund nekk fu fa gën a sori ci sowwu lii di góor lii di jigéen mu fexe ba ñu jur doom te duñ gise duñ jéggante doomu aadama ci pexeem am lu mën a far àdduna ci diir bi gën a gàtt ci pexeem taxañ géej gi taxañ jéeri ji taxañ jaww ji not safara ba moom ko not électricité not électronique ak magnétique lépp kàttan bu yàlla sàkk wàcce ko ci kaw suuf notal ko doomu aadama ngir mu jaamoo ko yàlla ngir mu xamee ko boromam ngir mu wó mu wóolu kàttan bu yàlla mu dugg xolam mu ragal yàlla mucc ëllëg doomu aadama détourné ko def ko ci njariñal boppam boole ko égoïsme ak li ñuy wax égocentrisme bu jéggi dayo doomu aadama not gi mu not nature bi not lépp lu yàlla bind lu dul malaayika ak jinne ba jinne sax doomu aadama nat na ko waral na teewul kat ki mu waroon a nat natu ko ko ba di ko jaarale ci ko soob doomu aadama di reyante ci kaw suuf ngir li ñuy wax fësat rek ak anani la ko arab di wax tubaab na égoïsme intérêt rek ak passion di ko tax a jëf jiital ko nga xam ne ci ñu toll ci xam-xam ñu yàlla xamal ci toll ci man-man na ci ñu day naaw doomu aadama bu ko jëmale woon ci li ko yàlla sant daañu far ràgg yi ci kaw suuf kenn dootu tawat daañu far dëng gi ñëpp jub daañu fañ far tooñ kenn dootu tooñ daañu fexe ba ñu aajowoo police dootuñu aajowoo gendarmerie dootuñu aaw aajowoo tribunal dootuñu aajowoo kaso doomu aadama di gën a góorgóorlu rek ci lu ko jëriñ njëriñ lu teew di gën a wan gannaaw yàlla rek di gën a wan wan gannaaw àllaaxira saa di ko gën a jege safara di ko gën a jege a di ko gën a sori yàlla di ko gën a sori jàmm di ko gën a sori ëllëg rek mu jëriñoo kon xéewal yàlla yépp ci kaw bànneexam doomu aadama dal dugg indi fànn yu bari indi façon yi jëfin yi yu bari ci foof ak bànneex indi façon foofu nekk xelam xalaat ko génne ko façon wu noos wu nekk façon wu bànneex wu nekk ci jubali ci bu nekk tàbbi ci mépp mbir seytaane jommal tubaab yi tubaab yi jommal nit ci loolu yi tradition yoon ci kaw suuf aada yi mentalité yi xel yi bëgg-bëgg yi yépp walbatiku jublu fu kenn xamul xale ni sotti ko ba seeni guu sotti ko lu baax tafatu leen ndoxum ñuul lu bon saf leen neex leen جرى من هناك لفقط يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بدا خامي ني سيني لام دا لا سيني وارا لي اك سيني لوخ اك سيني تان لي دان ديف لب سين لام سيني لوخ سيني تان اك سير بو نيك سي نيوم دا نكو نيت يوم القيامه سيني كو سي nga xam ne def lu bon karaw bu nek ci sa yaram bépp sat bu nek ci sa yaram sa yaq yaram ba ci sa yàq mu ngi lay reub di la seedeel ci kanamu yàlla ëlëk sa do ci mëna weddi dara do ko jëm sax nga faté dé ba faw ba mel do dé te gis bu ne nga gis ko faté ëlëk ba xaw li ñëw khatam allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim tashawatun wa lahum azabun azim rek ca ci kaw bàkkaaram yu bari ci kaw fàtteem yàlla suñu borom dal di persété xolam mu mel na yaj boobu tax boobu ñu bëttul ak waar du ca dugg mu gën a wow doj mën too ci sotti ndox ba mu dugg ca ndax amul bunt buñ seetee kaw suuf xeeti nit ñëpp nation yëpp jullit ku dul jullit nit ku ñuul nit ku weex ngay naar ngay leneen ngay tubaab ñu seet ne ci dëgg dëgg bu ñu ko seetee ngëm ci boppam la ñu fab sànni fële donte ñu ngi ci lislaam di def yëngu-yëngu yi di sëgg ka siggi di jàpp dugg ci jàkk bi yëpp ñu gis ne ngëm ji moom bu doon fukk juróom-ñeent yëpp dindi dañ ko sànni desee tuñ ci lu dul benn te benn boobu itam tàmbali na di wàññiku fa mu jëm mooy jeex rek ni ñu waxee woon ne bu saadi taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yàlla nit ñi du dem ba mu ne dootuñu jullit wala diine sàngam bàyyi na waaye dañuy dem ba ngëm gi ci boppam mooy dañ nga nekk fay sa dëkk si gi te boo ñaanee yàlla du la may boo ko woowee du la wuyu ndax nekkatul ci sa xol doomu aadama fàtte lu doon teraanga teraanga bi ñu war a teral nit teraanga bi mu war a teral boppam fàtte segu ci ay cëram yépp yi nga xam daañu ko laaj ëllëg ñu dem ba li gën bon ñu di ko wax góor jigéen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñëpp am ndax am seeni syndicat seeni association seeni bureau di daje seeni waxtu yi daje di laaj seeni xàq ni ko ñeneen ñuy def te amul kenn ku muy naqari ci doomu aadama yi ci yi ñëpp gise ko lu normal lu war a am la ndax ku nekk yaa moom sa bopp liberté la ñu kon doomu aadama ak yëgam ak mosam ak léppam walbatiku walbatiku jox seytaane boppam nekk ci matérialisme bu tëx topp topp bànnee xam rek kenn du dox wala nga jóg wala nga yëkkati ku jëm fenn du dul foo yaakaar njëriñ lu teew dërëm boo def ci sa poos wala ko wala bànneex wala dara yi yëkkati ko rek la tax a jóg xoli nit ñi teqali ko ba mbokk amatul ku ci nekk rek intérêt ngay seet waajur dootu yërëm doom doom dootu wormaal waajur bu amul loi bu ko forcé defal nii dara ci xolam dootu ko tiital wala mu yee ko ci di ko ko sant mu di ci xalaat ëllëg xam ne dana dajeeg boromam te dana layoo ay waajuram layoo ki xaritam layoo ki dëkkandoom doomu aadama kon na mu war a def ci jamono bu mel nii war a gànnaayu am formation boo xam ne mooy tax lu mu mën a dajeel ci jamono ji rek ci tex ba nekkal boromam rek di ko texi ëllëg lu jafe ngoog kon doomu aadama war na faggul loolu tàggat boppam waajal boppam ba mel na xam ne ci lay mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono mooy li xale yi di laaj loolu li ci jiitu ragal yàlla jiitu lépp ndax dara du dara ci adduna lu dul ragal yàlla lépp lu ragal yàlla andul lépp loo xam ne yàlla taxul nga def koo amul njëriñ te dana la lor ëllëg te da ko réccu xam ngeen ni nit bu tëddee ci lalu deem ba tàmbali sukkuraatam la mu gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a sikk loola lay gën a ragal loola lay gën a bañ ndax loolaa doxoon diggante ba boroomam kon ragal yàlla bu fees dell xol ba tax lay def dina tax a bàyyi dina tax a jóg dina tax a toog di dina jooyloo dina tax a ñàkk sa alal dina tax sant sa jamono ci loolu di la tax a xuloo di la tax a mer ragal yàlla googu dong moo àgg ci darajay segal nit ci ëllëg safara ak mbugalum bàmmeel ak metik ci kuraat gannaaw ragal yàlla xam lu nit lu mu nekk war na koo xam te xam lu du wees mukk mukk mukk min al mahdi ila lahdi la ñu wax li ko tàmbalee ci bépp biñ la tëral ba nga juddoo ba keroog ñëwee tëral ci jaat wuta xam du wees mukk ndax nit lu mu dugg te xamu ko mën na caa génn ak neen te xam yomb na rajo yaa ngi xamle télévision yaa ngi xamle nit ñi mën a leen ñu fees dell jamono bi kenn képp ku bëgg a xam sa diine mën nga koo xam bu la jaralee dara bu la ko jaralul nag te wuti dërëm jaral la fàddu ba am ñetti weer ci àll wala ak waaye sa diine jaralu la ñàkk ñaari fan nga fàddu ko sa kër wala ñetti fan wala nga ñàkk dara ci sa alal na la wóor ne sa ngëm googu kat àggul ci daraja gi ngëm di seddale nit mbugalum bàmmeel wala safara yowmal xiyam boo xam loolu ba xam sa diine nga ragal yàlla ragal ka sewaat faral na muy waxtaane ragal yàlla ne leen taqwallahi mooy iman al iman ak al amadu saalihu ñoo ànd al amalu saalih mooy lan mooy jëf ji set ëllëg mbugalum àllaxira ma ngëm mu ngi mel ne garab booy jëmbat mu aajo woo suuxat nga di ko arrosé bis bu nekk bu maree mar wa lor ko buñ ko suuxatati kii ba mu yàgg mu dee noonu la ngëm mel ngëm da koy dundal xol dafa laaj ko suuxat suuxat gi mooy lan na ngay di xalaat ko ëllëg li ngay xalaat kiraayu bàmmeel li ngay xalaat jéggi siraat li ngay xalaat bis bu ñu dajee ci bis penc ba ak yàggaayu bis penc ba li ngay xalaat yàgg li ngay yàgg ci bàmmeel laaj ko malaayika yi li xalaat yooyu yëpp di xalaat xaq yi nga ameel say moroomi jaam di xalaat li nga sàggan ci àdduna ba sa dund passé te ëllëg daañu la laaj sa dund gi ci lan nga ko sànq sa ndaw gi ci lan nga ko ràppal alal ji dugg sa loxo fistin bu ci ne na mu duggee sa loxo ndax lu leew la wala lu leewul na nga ko sànq na nga def ba mu tàggoo yow ci loo ko dugal ndax lu dagan la wala lu araam daañu dafa laaj ëllëg waxtu yaaru suxbati wal mujaalasa gannaaw loolu nga tànn ñi ngay jaxasool tànn ñi ngay lëkkool tànn ñi ngay waxtaanal ndax li ma waxoon ne xol kat mu ngi mel ne garab bu ñuy suuxat li koy suuxat ma tudd ci wéet di xalaat yooyu di xalaat sa borom jaamu yàlla julli goo teewlu sa borom gën jàmm ci teewlu koor goo def ngir yàlla dimbali goo dimbal jullit ngir jëmmi yàlla lor joo mën a tegal nit nga def ko ngir jëmmi yàlla rek li ngay def nga sellal ko xam ne yàgg sa borom rek nga teewlu yooyu li soo xam ngëm di ko màggal xam ngeen dana dem ba àgg ci dëgëraay koo xam ne nit ki day mel ne dafa jàkkaarloo boromam day mel na ne yomal xiyam taxaw na ba pare muy jàndoog li koy xaw lépp mu mel ne lu mu teg ay bëtam muy quwwatu iman moom lu ñu tuddee yàqin yàqin nag maarifa nekk ci gannaawam ñu misaale ko ni mu la leere ne mosuloo dem màkk waaye mu leer la ne màkk am na ndax ak mu ne nga gis ñi koy dem di ñëw ñi aje ñi umra buñ di ko di ko nettali mu wóor la ne mbooloo mi lépp mënuñoo ànd ci ay nax mu wóor la ne kon màkk am na waaye nag teguloo ko sëbat xamuloo màkk na mel xamuloo fa dara kooku mooy yàqin waaye mën nga koo waat yàqin boobu maarifa nag mooy nga dem ba àgg fa def sa aj def sa umra xam ruqayaat ruqaar la fa nekk lépp noonu lañ ciy wutee kon daraja yi ngëm noonu la wutantee xam ngeen ne yomal xiyam lëndëm gu tëx gu mel ne gi ma misaal woon léegi moom la euh, jaam yi di jëmee ca bésu tong ba ca fa ñuy daje waaye kenn ku si nekk sa leeru ngëm rek nga moo lay leeral yoon wi ngay jaar yoon wi rabbu yeeg pousse yeeg lancet yeeg dagg bi ak xaaxam bi ak xali safara yi ko fees dell doo gis foo teg sa tànk loolu ngëm rek lay niital ñii seen ngëm mel ne sondeel bi tàkk ñii mel ne xalu safara waxam da nga koy wëndeel ngir muy leeral tuuti ñii seen ngëm mel ne weeru laylatul badar ba ci ñii mel ne jant bu fenk kon bu demee ci jamono ba gis yenn màndarga xew-xew yu bari yu nuy dégg ci jamono bi di ko gis muy xew-xew yu mësul am yu mësul woon a muy yu xari ba yu kéemaane dee bu bari ñu tekki ci suñu bët dee bu bari façon yi dee wu nekk yu yéeme wu nekk mais si tam adduna bu fi nekkoon rek wëlbatiku na mel na ne bopp bi moo féete suuf tànk yi jëm kaw ay kawaaris maanaam ay catastrophe yu daj suuf si bu dee tey fii bu ëllëgee feneen la doomu adama yi dara waaru du tax ñu dellu seen borom du tax ñu tiit du tax ñu xalaat jur gi jigéen bi jur boo waram démocratie ko indi ci aduna mënu la ñàkk yalla bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako bo juree sa doom mu jang yow jang lo mu jaar ay béréb ba wara a am pal sàngam ndomba tànk sangam mu am ko daf lay yiss ni ko yaronte bi sallallahu alayhi waxon waxam du dañ jant di fenke sow gannaaw exposé rek yooyu yëpp lu ma ko fi expliquer bu fekkente ne jamono may na ko buñ jeexale bu amee ay questions yi ñu laaj jéem ko développé naka noonu génn yaa jooja ak maa jooja ak fitna gi nga xam ne day jóge sowwu jëm penku maasale adduna bépp yëpp sallallahu alayhi wa sallam wax dafa woon yi alquran wax na ko fitna yooyu tàmbalee ci li ñu tuddee colonisation al istimar mu indil ñu jàngoro yu bari yoo xam ne dañ ko waroon a seet xam ko wattandikul ko suñu bopp ndax suñu diine nu ko teg moo nu ko sant mu waroon a tàmbalee ci décolonisation te defuñu ko moo dëkk bu nekk gox yi ci nekk yépp la fa nekk ci ay borom xam-xam ñu tëral ay programme karte bu nekk bis sàngam jiw sàngam ma fa war a dem yéene ji ba ci ñaka kaso ga nga xam ne dañoo ràbb ràbb xol loo xam ne moo leen tax a def loo xam ne jaaduwul te ñooñu dañuy yàq société bi ay borom xam-xam daf ko war a dem di leen waar di leen yee di ubbi seen xel doomu aadama lu ñu war a defar na ndax lu am fayda la yàlla akub yonentam ak alquran ji bañ joxee doomu aadama xaq jox ko war na teg ko xam war a tegu booba doomu aadama amagul xalaat ba di ko jox ay ay xaq wala dañ ko war a warmaal wala dara loolu yëpp lislaam ci biir sax bu demee ba ci kanam daan gis ne lépp lu doom aadama yaakaar ne mën na koo jëriñ fii ci adduna mu ngi ci biir lislaam lislaam nag dafa ngir doom aadama mën a jaamu yàlla am ëllëg waaye defu ko muy bit bi nga xam ne ci lañu war a yem da nga koy am rek jëriñoo ko ci adduna yem ci ñu gis ne wàll nañ jàngoro yoo xam ne da gis nit ñoo xam ne seen xel dafa manqué ba bu xel doon fukk ñaar lañu ko am ñuy jëf jëfi dox yuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox gi ak ak jàngoro yi ñu bind ko ci téere yi ñu di ko jàng di ko génne ci yi ñu ko seetaan di ko def ay image ci ay téere ñu di ko ubbi di ko xool di ko wane ci télévision jullit bi kon war a seqantal xolam xelam dellu si ci boromam seet lu ko war liberté naat du benn évolution du benn avancement liberté moo am solo liberté nag dafa am ay limite dañ ko war a xam xàmmee ko xam li la liberté may ak lim la mayul nga xàmmee ko liberté tekkiwul rébellion tekkiwul li arab di wax tamarrub seet seetlu ci kaw àtte yi di def la neex loolu bu liberté nit seen muy ci suuf di dund war na am royukaay bu amul royukaay rek seytaane yi doon royukaay wa man ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yaktubun ndagam bu ñu demee France ci dix-septième siècle rek ñu si benn bindikatu théâtre ci naan Molière mu di ñu ñaax ci bu ñu yéemee nit ba naw ko lu mu def rek mu naw loola du mu seet la baax ak la bon du mu naan quand une personne on prétend se c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler mu ne ce n'est point l'apprendre pour exemple que de tousser et de cracher comme nit ki laay def sama royukaay dama koy roy ci lépp bay saqate ni muy saqate di taflee ni muy taflee di nendoo ni muy nendoo demaat ndox ndox ndox bu mat sëkk am na royukaay yu bari waxuma la dara waaye buñ delloo woon ci sunu mag ñi ci jóge rek ni ñu dundee woon ni ñu jàngale woon adduna jàngale ñu ko àllaaxira jàngale ñu ko diine dara du ñu jaaxal ci adduna te dara du ñu fëkk boo gisee léegi lu science bi gën a développé détective yi dañu gën a fort ba mën a détecté dem nit pour sa woo xam ne dafa nekk ci mbalk moo xam ne fukki junni lii tari ndoxa ca nekk dossier yi gën a bari tribunal kaso yi gën a fees banditisme di gën a développé fu nekk ba ci réew yi gën a avancé ñu xam ne kon yar bi jëriñatul dara lu ko waral lan la mag ñi seenub yar wuute woon ak yarub léegi ñoom day exemple la ñu woon seenub dund ni ñuy dunde rek doy na yar nit ba xamal ko lépp lu mu war a xam melal ko na mu war a mel waxuma li ñuy wax ak li ñu lay jàngal lépp lu ñu la wax da ngay gis ñu melawoo ko ba mu mat seen wax du weddi mukk seen jëf seen jëf du weddi seen wax la seen biir mooy li seen biti li seen biti mooy seen biir seenu dund lépp ay leçon la ci ko bëgg a jubal lu nag buñ dellu si waatee seet suñu jamono ñu seet li nekk suñu kanam di ay nit ba yu war a wattandiku mu fees dell suñuy bët fees dell suñuy nopp fu nu jaar daje moom ñu toll ci jamono boo xam ne xam ngeen ne waa sowu yi muy li ñuy wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moyen âge ak qurunul wusfa dañoo umpale woon penku orient ba mu doy waar mais ne jamono bi ñu ko gënee umpale ñu ngi doon bind ñu umpale l'islam umpale jullit ñi umpale lépp te ñuy bind li ñu daan bind ci jamono yooyu ñoom seeni sët buñ ko gisee léegi dañuy rus mer dootuñu dañuy rus sax ku ko waxati ndax ak dënd ak nirum ndox rek mu gis ne turu Muhammad ci boppam xamuñu ko woon Maawund lañ ko daan tuddee pour ñenn ñi Maawund benn sët boo xam ne wurus la woon ñu teg ko ci kaw ñëy woo xam ne ñëy wurus la wu tëgg ba mu rafet yóbbu ko ci benn temple ci benn jaamukaayu yenn ci diine yi mu nekk ci penku pour ñenn ñi ñu ne benn chrétien la woon boo xam ne te xam-xam wax ñu nga xam ne ñu ngi wax di jëm ci lislaam seen xol bi day jóg ngir eel ak mer ak mbañeel ñu bind la leen neex lu ko waral benn islamophobie boo xam ne moo dominé woon seeni xol ci jamono yooyu ragal l'islam ragal boo xam ne Abdourahman bi jiite woon xare jullit bi bi ñu diggee Europe ba ci xeexu Kuwait boobu Charles Martel dajalee waa Europe ñëpp di dajal ñoom jamono bi loolu daataan am Abdourahman moom ci boppam turam lañ daan tiitalee xale yi ci Europe bu ñuy jooy di leen noppi loolu Abdourahman gerte coupé la tête c'est toi Abdourahman bi ñëw dagg sa bopp bi mu mel nekk rek benn ëpp rek la loo xam ne monstre boo xam ne ku ko dégg gis gis nga seytaane loolu ñu dugal ko ci bopp nit ñi ba mu sax ci seen xol ñi xam ak ñi xamul yëpp ndax ñi xam ñu dimbale loolu ci seen dund ñuy dund xam na mënu la d'accord mukk ak civilisation xam-xam science nanguwu ko daf ko rus sax ñu di ko bind ñu gis nag ah, ci noonu ci suñuy jamono ay lecteurs ay jàngkat yoo xam ne dañuy liir lu nekk seenu ñor ak seen xam-xam ak di ci xàmmee muy def ay jeexit ci ñoom yi di leen sàggaloo yi di leen sit ci sàkkaloo ci li ñu war a gëm mun fekkee ku ñu xam ne benn professeur naan monsieur Casanova Casanova boobu du ñoon Mohamed et la fin du monde waxte yu doy waar mu ne Mohamed li tax désigné wuñ woon ku fa wuutu bi mu fiy jóg dafa jàppoon ne du fi jóg lu dul bu àllaaxira bu saa di taxaw yombal xiyam maanaam bu adduna tukki boobu la fi jógee xarawum jàngal alxuraan li yàlla wax yonente bi wax boo fi naa nangam boo fi jógee sa gannaaw nangam mu mat bari ba dee mu dal gis nag yenn ci ay aay yi nga di mu wax mu jéem a interpréter aay yooyu am na ñu mu fàtte ndax moo ko dul alxuraan foofu ñu bari ay njëmte yu rëy li mu bind Washington Irving Savary Molière Gustave Le Bon loolu de Brueggelmann Caradeau lu mel am ak yu dul ñoom ci orientaliste yi ñu bind ci l'islam ay wax yoo xam ne boo ko jàngee sax da ngay ree boo xamee dara Voltaire ci gën théâtre théâtre am boobu bindoon daf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy nit koo xam ne kii ku mar koo xam ne rey rek fanatique moo ne ci boppam ak bëgg nguur boo seetee nga gis ci suñu wax tellement ngis bi boobu yëngalam ci jamono bi du dara dara yim doon wax solo ñoom ñoo ko defal propagande ñoo ko réyal di ko garaawal te yi wax rek yëpp bi ci alquran yëpp ñi jamonoon ak yonante bi dañ daan wax kàttan yat bi dañ daan wax ñu ko gën a garaaw wala yu mel noonu fii dof la day ak ci ay jinne la àndal ak ci li muy wax daf jàng keneen daf koy dégg ak keneen ko koy waxal ak kii ab jabar la boo xam day jabar nit ñi waxul dara lu bees waaye nag jullit fi ñu juume dañoo waroon a profiter ci occasion boobu expliqué nag l'islam ndax curiosité bu muy tikkee ku dégg ne am na ku bind ci l'islam nangam ak nangam ak nangam te bokkul ci l'islam lan nga tontu war dañ ko waroon moom lañu waroon nag daañu ko laaj te daañu ko seq daañu ko yër te boobu bu ñu ko yëree daañu xamal nit ñi ñi xamul woon ko ni ñu ko gisee yàggal muy ëllëru jullit ñi dafa leen a yàq dafa yàq seen der lii fii dafa ñene war nañ koo yar noonu moom lañ ko gisee woon ba am na lu ci nekk loo xam ne gis na waaye nag nañu waroon a comporté dëgg defuñu ko kon gaa ñi nga xam ne tudd naa leen ñoom ñëpp ak ñeneen ci mujj ñi ci bindkat yi nga xam ne dañuy bind ngir réeral nit ñi ngir xeex l'islam ragal buñ ko ragal dañuy def nag dañuy wan nit ñi rek ne dañu koo xeex wala dañ koo bañ déedéet dañ koo ragal te mën nañu wax yi tax ñu ragal ko dañoo ragal l'islam lool du ëpp ma waral sax bi ñu yóbbaal nag lenn ci borom xel yu woyof yi ak lenn ci xale yi yoo xam ne dañoo am complexe ñu créé ay baat yoo xam ne ay gànnaay lañ ko def complexe ñi réeral ñi te baat yooyu kat amul benn xaqiqat mën nañu ko liggéey ci pexe yu bari yoo xam ne pour réeral nit ñi ak sikk loo lépp loo xam ne day dellu ci nubuwa ci ci prophétie ak yi ci topp ak li nga xam ne jëfandikoo itam jëriñoo na li ñu tuddee léegi taqaddum ak tasawur ci suñu jamono mooy évolution bi loo xam léegi ak développement ak civilisation ak liberté liberté d'esprit ñu dem nag ba gëm ko lépp loo xam ne rek li ñu jàppee dëgg mooy li ñu waa soowu jox mooy européen yi li ñu indi rek mooy li baax loolu daal di nuyoo si ñu fay ko dalal ko moom moom ñoom jàngoro yooyu ñu toog dëkk fi nun ànd ak li ñu ànd ak ci ay yu ñuy commettre nañuy sàcce nañuy naxe nit nañuy wëlbatee xelu nit ne nañuy jëfandikoo li nga xam ne duñ ko jëfandikoo moom nit ki ba faw di dugal ci bopp nit ñi jàngoro ji nga xam ne mooy tax li gën a bari ci xale yi jàpp nañ ne nit ki dafa war a nekk na ko neexee rek loolu mooy liberté parce que bu fekkee ne am nga looy roy wala koy respecté wala ku lay digal rek nga ne nit ki dafa taat kon dama tardé kon damay damay tardé dama war a mel na ma neex bàyyi na rek mel ni ko neex bàyyi moom du xalaat ëllëg du xalaat dara. loolu ñoom bu ñu seetee ne alxuraan jommal na leen alxuraan na leen jommal ndax science lu mu développé développé développé toujours lu mu découvrir rek gis ne alxuraan jiitu woon na ko ca alxuraan jiitul ngir jàngale science déedéet yàlla ba mu tàkkee doomu aadama wàcce ko ci suuf si tàkkee ko xel la ko xamal ni muy dundee xam-xam boobu ñu mu ko tàmbalee jàng ci wa allama aadama nasmaa kullaha ba su borom wàccee aadama ci suuf si ñu malaayika yi ci laa ci wàcce mooy nit borom suuf si malaayika yi ne ko ñun ñi nga xam ne du ñu moy du ñu tuur deret du ñu sàcc dañ lay jaamu rek ñun monsieur boole leneen ñoo gën a yëg ci kaw suuf mu xamal leen ne leen aadama kat moom moom suuf ndax suma kaw suuf yi ma def ci kaw suuf aadama ci mën a waaru aadama mu mën a jiite mbindeef yi may tudde nit nga xam ne ñooy yenu amaanatu diini aadama moo xam nañuy dundee ci kaw suuf ndax yéen malaayika yi du lekk du ngeen naan bu ngeen fi nekkoon du bay du ngeen i yére kon du ngeen am ay yére du ngeen wut ay jumtuwaay kon li ma def ci kaw suuf ci biir suuf si ci ay kawte nga gis samay xéewal yoo xam dañ ko war a xéewaloo sant ma du ko xam xam malaaka xamul wurus ndax déew ko dara du ko takk xamul xaalis xamul jamaa xamul pétrole ba di ko jëriñoo xamul nañ bi ñuul nañ ko mën a liggéey ba def ci ay machine yooyu yëpp xamul électro électronique xamul électricité xamul ngelaw bu ñu ko mën a jëriñoo xamul ndox yooyu yëpp xamul ci dara suñu borom xamal leen inni yaalamu ma la taalamuna wa allama aadama lasma kullaha suñu borom xamal aadama yooyu yëpp lu ci nekk bu ñu laajee malaayika yi lii lu mu duñ ko xam ndax du seen affaire suñu borom wan leen ne du saa aadama moo war a dëkk ci kaw suuf suuf kon nekk lu mel ne bato boo xam ne dafa teddee fii suñu borom prévoir nit ñi si dugg fii mu toll ñaata dañu ñaataa si jiitu nga xam ne dañu ne matière mooy jiitu roo bëgg sikkiloo way gëm seen ngëm ñu dem ba ne li ñu tuddee hasard rek doy pour créer alam bii ñuy gis maanaam lu dajante rek waaye ji leen tontu ne bala ñu mën a gëm loolu dañu jàpp golo boo xam ne ca digg àll ba leen ko jëlee buñ dikkee ñu dugal ko ci néeg bi indi fi benn machine à taper mu mu ñëg ci kaw di ci fo ba noonu tànkam di dëgg ci bouton yi mu tappe foyam bu mat tëkk jub condition yi foye yëpp wala ñu bind article boo xam ne day d'accord dëppoo jamono bi ubbi xeli nit ñi ci kaw ni muy fecc rek nga xam ne tey ko bu loolu amee ma soog mën a xam ne adduna bi ak yi ko wër buur bu xam-xamam dajalee lépp dund ko kon bu dajante la boobu boobaa bu golo googu wala wala wund woowu jàpp mu fexe ba tàppe lu mel ne article wala téere wala poème bu loola amee ci dajante rek ndax xam ngeen ne borom moom jàngul xamul amul xel bu fekkente ne ci wadd waddam jooju ñu def mën na liggéey lu mel noonu ma soog a mën nangu ne adduna bii liggéey nañ ko liggéey boo xam ne sëb fa rek la maanaam dafa dajante ah ñoom borom xam-xam yooyu bi ñu gis tabi'a maanaam muy nature bi ñu gis ne adduna dox na sax xam-xam bi dox bu ci ak suura isaaq isaaq mu nekkoon mu dem ba découvrir na adduna bépp dafa am réeral yu ñu suubara am na ay ay loi ay canon yoo xam ne ca la jaar ca du may loolu dañ koy tekkal ne kon am na beneen intelligence maanaam borom beneen xel xel mu kawe mu kawe lépp moo xam ne moo organisé adduna bi lépp kon nangotuñu suuf fa mais kon xalaat doomu aadama lu limité la ndax nit ci bi muy wax li mu gisagul dong ci lay ci wax ak li mu xalaat béréb bi mu nekk ak li ci xew maa ngi tànk bëri ci démb mboo rek la ñu nañ gis ñuy jaamu parlement ñun ñu leen di jaare di rang que boo xam ne mat na ay kilomètres fanatisme foofu la mën a yem kon bu may bu may fanatique gannaaw adduna bépp ku fi nekk rek fanatique nga am nga ci yoo fanatique ma fanatique ci yàlla kon naa fanatique ci yàlla moo ëpp njëriñ ñu gis ne kon ñooñu dem nañ ba xam ne ga gaa ñu doon bind du alxuraan ci gisu doomu aadama dafa am fu mu yem ci gis-gis yooyu rek bu loolu passé rek doo fi jëriñ dara alxuraan daal mooy la yàlla ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafisuuna nun noo wàcc alxuraan te noo koy garde ba faw na ko fi yonent bi sallallahu alayhi bàyyee woon la fi nekk ba tey kenn mënu cee yokk dara wàññi dara kon doomu aadama yi jullit ñi war a def ngir ñu gànnaay dañu jàng alquran jàng alquran lan la fardu kifaaya bu ñëpp bàyyi woon toogoon a jàngati alquran ñëpp am bàkkaar bu amee nag maanaam waxtu alquran la wax amatul kenn ku waxtu alquran ci kaw suuf nga xam ne nit ñi xëy na ñëpp sax. fer nañ ijji ba mën nañoo wàccee ay kaamil ci kaw ñu tiim ko di ko jàng doomu aadama yëpp jullit yëpp am bakkaar bakkaar yu mag kon faw war nañ am ñu wattu alquran ci seen biir nga xam ne bu fi kaamil bi nekkul it daañu xam li yàlla wax sartaa woo mën a doon ñu gis ne alquran wax yàlla la kon demewul nañu ko ñen ak di misaale ñoo xam dem nañu ba seen ngëm wàññi ko ndax diine al imaanu bil xay bi fondation bi gëm kumpa loo xamul ndax yàlla kenn gisu ko jibril bu daan wàcc ci yonent bi sallallahu ko daan gis dawuñ ko gis boo bëggee rationaliser diine nekk cartésien boo ko bokkatoo ci diine génnal dem uti jeneen diine ci dul islam waaye yàlla ci boppam li mu sàkk lépp ci suuf si muy nit muy garab muy ndox dafa séddale rawxaani ni mu séddalee war sa ji nit ñi ak seen jub la séddale rawxaani yaa ci jëlee leen alxuraan ëpp rawxaani ci kaw ba nga xam ne kon dañ ñun ñi na ba alxuraan boo xam ne loi digle ak tere ko tax a jóg waaye ku koy jàng ngir muslu wala nga di ko takk ngir muslu wala nga di ko jàng ngir ñaan wala di a nit ak pexe du la jëriñ dara ñi nga xam ne code de la route boo ko mbaxaloon naan ko wala nga takk ko te li la wax développé ko du la tee def accident gis ne kon ñooñu ñoom alxuraan bi suñu si lu dul ne rek moog code de la route te maanaam moog aadama yi li muy digle li muy tere digle na tere na rek kon yeneen luwaa yi la te yonente bi sallallahu alayhi xamal na ñu suñu borom dana yëkkati ay musiba yu mag benn ngirub nammeelam wala ngir seeni tooñ benn xale rek bu dal alquran ci daara di jàng jàng baa si niim suñu borom teggi musiba moomu yóbbu ko feneen ci yeneen réew kon Sénégal war naa xam dara ci loolu Sénégal am na ñu daara yoo xam ne ñoom rek ko am jàng nañu alxuraan loo xam ne ñoom rek a koy jàng ba lislaam duggee fii ba léegi fonk nañu alxuraan fonk boo xam ne dongay daara yi ni ñuy wane gannaaw bind kaamil te ci xool dara du ca meg ji boo demee yàgg naa ci réewu arab yi wër naa ku nekk waaye gisuma ko fi ñu ko nan ilmu ras ñu am na ñoo xam ne dañ koo fànnoo muy seenu fànn moo tax lislaam Sénégal musiba yu bari dañ koy dégg ci yeneen réew waaye ñëwul Sénégal barke alxuraan ni ñuy def alxuraan ak ni ñu yàlla yi ci nekk tax na suñu borom leen loxo boo xam ne bëralu ko ñeneen waaw waaw leer na waaye bis bu ñu ko bàyyee gis ko bis bu ñu bàyyee loolu na suñu borom defal ba mu beral loxo bis bu ñu ko bàyyee mu yemale noonu ñooñu képp jullit ñooñu nga xam ne dumatuñ ci alxuraan lu dul texte la boo xam ne julli na tere la ñu am complexe ci kanamu occidentaux yi ba lépp loo xam ne li ñu leen ko doon reexee te ree jooju ko dugg bi ci ñoom dañ leen a bëgg a complexe wala ne ba bañ wacc seen diine rek lépp lu leen ñooñu di reewee ñu jéem koo dindi ci diine ji naan du diine nekkul ci diine ji dañ ko cee yokk dañ ko cee dañ ko cee nii ah, nit ki naaka ndax ñàkk a yeewu rek ak dof ak complexe alxuraan mooy dëgëral ngëmu doomu aadama mooy leeral xol moo koy xëcc ba mu alxuraan ni mu lottale mbindee fii fi ma a indi lu niroog moom ni ma ko waxee woon léegi alxuraan dafa xot ci kumpa yëpp kumpay jamono kumpay espace maanaam kumpay sàkk ak kumpay maanaam kumpay béréb kumpay li passé ak kumpay li ñëwi maanaam al maadi ak al mustaqbal maanaam passé ak avenir kumpa yooyu yëpp alxuraan daf ko xotti teg teg lu nu xamul woon ci yu masoon a am di ay kawteef yu jara yu taxam ne ragal yàlla nit yu taxam ne nit mën a waaru ba nit ak ci ngëmam foo xam ne si day mel ne dafa jàkkaarloog yàlla alxuraan dinu ko xamal te muy lu passé wala fekki mënu ko dinu xamal lii ñëwi ba ba saa di taxaw mu nekk ci biir alxuraan dinu xamal li tax maanaam kon ni mu xottee kum fa passé xotteeku kum fa mustaqbal maanaam avenir noonu la xottee kum fa béréb mu nekk ci béréb bi xam alquran xamal ñu lay xew ci beneen béréb boo xam ne sori nañu lool te mënuñu koo xam yooyu yëpp alquran mu ne sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq suñu borom ne jàmm danaa leen wan samay kéemaan maa ngi koy tàmbali ci seen bopp ci seen i jëmm nit ki gis kawteef ci jëmmam gis ko ci asamaan si gis ko ci suuf si wa ka ay minati samawat wal ardi yamuruna alayha wa maanaam muriduna waaye nag xol bu gumba ni tax Moussa ko waxee ne borom xol bu gumbaaraw borom bët yu fettagul borom bët yu feqegul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu mën a waare te du ko waar day gis lu mën a yëngal xol te du yëngal xolam day gis lu ko mën a fàttali te du fàttaliku du waaru mukk ni ma la waxoon na yegg boobu nga xam ne amul bunt rek boo cee sotti ndox léppay baras ci ko dem noonu la fi nga xam ne xolam ko gumba noonu la mel mu xam ne kon suñu borom bu ne doomu aadama yi danaa leen wan samay kéemaan ci seen jëmm sax mu gis ne yuuru doomu aadama rek ak milliards yi ci nekk moo gën a téemaane ci gën a ci àdduna ndax loo fi gis ñu liggéey ko muy lu yéeme wala ñu inventé ko wala ñu découvrir ko yuuru doomu aadama ko liggéey xanaa loolu war na mën a yee doomu aadama te day la xalqu samaawaati wal bi akbaru min xalqi naas walaakinna akthara naas laa ya'lamuun bind li suñu borom bind ci asamaan ci kaw téef ak yu yéeme ak yu mën a jaaxal nit ak yu mën a xamal nit yàlla ak kàttanam ak xereñam ak ak nam neelam moo raw bind bi mu bind nit ñi te nit rek mooy li gën a yéeme ci kaw suuf waxuma la dara yuuram boobu waaye nga seet appareil yi daje ci moom ak bu ci nekk la muy liggéey meew rangooñ deret dëkk ndox taflit ñandaxi lépp nekk ci biir doomu aadama te dara du jaxasoo moromam ci woyu fu nekk fa mu war a jaar lay jaar bët di gis li mu war a gis nopp di dégg li mu war a dégg xel di xalaat la war a xalaat loxo di jëf li war a jëf tànk noonu muy kéemaan yoo xam ne yeneen nekk ci seen gannaaw ca biir yeneen nekk ci ca biir ne ñu muy dajal ci kaw suuf ba yàlla yedd ko ne wa ka ay min ayaati samaawaati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anhaa mu'riduun bari ma def lool yu mën a tax xam ma ma def ko ci asamaan si def ko ci suuf si doomu aadama ñoom di ko romb ndey joor ak càmmooñ te duñ ci yéemu mukk duñ ci xalaat yi waaye nee na de kataballahu laa banna ana am rusuli inna allaha qawiyun aziz suñu borom bind na ca lawhul mahfuz alwa di nga xam ne lu mu ci bind dootu ko far ne man maag sama yonent nooy not ba faw mooy walillahi aqibatu lumuri lu yàgg yàgg lu fexe bari bari bari ci kaw suuf lu jaam ñi bari bari fexe lu ñu mën a inventé lu ñu mën a yéene nit ñi lu ñu leen mën a complexé dëgg ñu di rek bu keroog boobu xëy na gannaaw loolu waxtaanee mujj jamono mën nañoo àgg ci loolu bu ko jamono bi mayee te kon ñi nga xam ne ñu ngi jéem a réeral mbinde fii yuriduna li yutfi'u nuurallahi bi afwaahihim ñi nga xam ne dañuy jéem a sikkiloo nit ñi ci dëggug yonent bi ak dëggug alquran yuriduna li yutfi'u nuurallahi bi afwaahihim waaye wallaahu mutimmu nuurahu walaw kariha alkaafiruuna dañoo bëgg a ëf ba fay leeru yàlla ci seen i jëmm waaye yàlla day leeram gi ñu fi indi dana ko matal sët bàyyi ko ba bam ko neexee rek mu topp fi jëlee nee na fi ñi ko ñi ko mer ñi mu naqari nañu dee ñu gis ne kon nag waxoon naa ne li nit ki war a jemboo li mu war a gànnaayu ci jamono bu mel nii war dina fexe xam diineem xam li mu bëgg li muy bañ xam li mu bëgg ci moom ak na mu koy defee bu ci jógee na fexe ba am taqwallahi ragal yàlla waxoon naa ne ragal yàlla gi boo ko tuddee da ngay bari xalaat ci ci maanaam yàlla yi di dem ci nga xam ne da nga fay dégge lu la ci yàlla di siyaare bàmmeel yi ñu wét li ko ñi nga xam ne dee nañu jóge nañ fi te amatuñu yenn pexe ñu mel ne ku lakk ñu ko keneen lay soqal rek waaye yow say pexe jeex na ku la ñaanalul ñaan nga fekk la fa rek du la jëriñ dara amatoo looy xalaat nga di wéttali ko ñooñu di dem ci jàkk yi di dem di yi boroom xam-xam yi di waxtaan ñoom ñu di lay yee sa xol day gën a nooy di gën a set di gën a leer ngay gën a sa ngëm di gën a dëgët ngay gën a jege yàlla di gën a texe ni yonent bi sallallahu alayhi wa gën a jeex rek waaye nit ñi dolli ku ñu ludul jublu adduna dolli ku ñu ludul sori yàlla dolli ku ñu ludul jege safara dolli ku ñu ludul sore àjjana loolu mooy li am Sénégal gi ni ma waxoon ne suñu borom beral na leen loxo am na ñu ñu baax waaye réew yëpp réew yi lislaam yëpp mas nañoo am ñu baax waaye ñun ñëpp bañ amee ñu baax ñi leen gëmoon teg leen seen place déglu la ñuy wax ñuy naatal seeni xol di leen yar ci zahir ak baatin di leen waar ci lu toll ba du fàtte yàlla ba ñu demee ba gëmatuñu leen ne doomu aadama yëpp la si suñu borom yamaleeg yeneen réew yi nga xam ne nekk ñu ci lislaam loolu moo waral da ngay seet doo xam ne réew yi jullit ñi ak réew yi ñu dul jullit ci mbiri àdduna musiba di leen dal ni muy dale réew yi yéefar yi suuf si yëngu montagne safara yi di di di yàbbi di leen lakk li ñu tuddee raz marée di leen bale ngeen jaxase accident yi am avion yi di daanu yeneen musiba yoo xam ne yi ci liggéeyu doomu aadama la jógee doomu aadama ko sàkkoon defar ko ci bari pexeem ak néew dooleem loola alak ko dal di gis ne kon suñu borom ni mu ne na ngeen nekk rek lañ leen di fayee al jazaaw min jinsil amali lam daan jëf leen teeg yow لا غا دان ديف لينتك موم بوكو سوبي بو سوبي لام دان ديف لينتك ياو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم سن بوروم دو سوبي موك ني موي ديف لينتك اي نيت لولم باتا نيوم سير بوك ني سوبي نان دون ديف لينتك موم نيوم بونو دامي با جانغاتو القران گماتو نيت ني باخ ني ورمالاتو ني لين دغلوتو ني لين joxatu leen sunu bopp ci kaw jox koo xam ne mu ngi mel rek ni ngay joxe sa bopp docteur bi boo feebaree ndegam docteur ngay dem ci moom li mu jàng ba xam ko boo ko jàngoon xam ko waaye jànguloo ko nga tawat sa bopp jaaxal na nga jébbalu ci moom li ñuy wax jébbalu mooy jébbal ko sa bopp bu la nee bul añ doo añ bu la nee bul reer doo reer bu la nee sunnigul sax nga sunniku bu la nee tekki sa koy sax nga tekki ko sa moroom jaam dara du jàng ñu ne nag nit koo xam ne que yaakaar naa ne jaar na foo xam ne ci yàlla àgg guma fa ni ma ci borom xam-xam bi li ma ñàkk xam-xam ñëw fi ma mu jàngal du ma ko wute yàlla ci kooku xam ne xam na yoon wi ndax ñàkk ndax jaar bu mu fa jaar mu defee ko ni bu ma ko mënul it naa ko yéene jàmm wala naa ko defaral bu boobaa yar dañ yaru tërbiya dañ yaru tarqiya dañ xam yàlla dañ yërëm dal di wàññiku réew ma mel ne yeneen réew yi musiba dal yi di leen dal ni muy dalee ñeneen ñi lu seet na ba tey nag kon suñu réew mii yàlla ñu leen garal loxo bokk na ci lii nit ñi di gën yoon moom maanaam ay confrérie ñi koy xam ñi ko xamul ñoo koy diimat waaye bi nga xamee ne missionnaire catholique yi ñëw nañ fii ñetti m yooyu ñuy wax xaw ma buñ fekkul woon turuq yi réew mi daañu leen ma gis bu ñu nekk ci jullit waaye leer na leen ne ñii murid ku leen a bàyyi leen sëñ Bamba ñu jëm laa rey ñii Tijaan ku leen a bàyyi leen si Ahmad Tijaan wala Alaaji Malik duñ la faale xaadir ku leen a bàyyi si Abdou Xaadir Jilaani wala Cheikh Saadi wala ñeneen duñ la faale kon nag ñooñu ay dot lañu yoo xam ne ñoo dëgëral lislaam bi ci réew mi ndax ñu wax ne walaw liya adillatu tasxiixi yonent yi ñooy ñu yàlla yónni ci jaam yi raw ñi ñooy ñi nga xam mooy ne lii Muhammad sallallahu alayhi wa wax dëgg daal li ñuy ma teg sama loxo tàggat bi yàlla tàggat nit ñi du neen demal nga jàng ba jàng ar nga yeew a jénto bi kenn la faale defub <laughs> ba seen gëm wàññi koo la ne politique gu adduna waxuma politique gu fenn rek adduna laa wax moo leen nag ba nga xam ne lislam ci boppam politique lañ ko def maanaam jéem a dajale nit ñi ak jéem leen a jaarale aw yoon ak fexe ba ñu gëm la loolu politique gu adduna pour sa bopp sa njëriñal bopp a tax loolu jullit ñi bu ñu demee ba àgg fa ngëm ga daanaka dañ na ngëm gu wàññi ko googu moo tax ñuy weddi yu bari dem nañ ba weddi mu'jizaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam yonente bi mosul def benn l lu dul alquran fenn nañu sawjat yu bari yoo xam ne tegtal yu leer yu leer lañ ci am luñ ci bëgg a nam dañoo bëgg wax ne yàlla amul kàttan bu mu ko defee loolu lañ bëgg a wax mënu la nekk buñ sukkee ci alquran saxal ñu sukk ci alquran dindi ko ba mu set saxal lii ba mu wér yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy nit bi ku ñu yónni ci àdduna ba mu fi jógee beneen yàlla si dootu fi ñëw bi mu fi jógee nag secret bi nga xam ne mooy doxal adduna yonent yi daan ko amee bàyyi na ko fi secret ba am na zahir am baatin zahir bi mooy sharia atte yi nga xam ne nit mënu la rëy wala ngay gudd ba tiim ko wala nga gàtt ba buruwlu ko mënu la am ñëpp a ci yam xamewul buur ak baadoolo xamul nit ku am baatin ku ko amul sharia moom yàllaa ko santaane ci kaw ñëpp la jaar ñëpp a ci yam loi la ko bu ñu ko ba bu ñu fi jógee donnale ne ko ay nit moo di boroom xam-xam yi jàng sharia ba xam ko di ko xamal nit ñi baatin bi am na ñu ko ñu ko ñu ko bàyyee moom it ndax bu fekkoon ne saahir bi rek fi def sa baatin amul kon adduna kon lislaam du am solo day daal di mel ne code de la code de la route boobu ñu waxoon sànq rek ñi nga xam ne seen ngëm àggu ci wala seen xam-xam foofu lañ ko féetale noona la waaye kon noona lay mel dootu doonati dara dootu doonati dara diine nag lislaam diine yi dund la diine yi dee la lu tax diine yi dund la amul jenn diine ji fi ñëw joo xam ne organisé na nit ki la muy dunde ci àdduna ba mat lu dul lislaam xam nañ ne diine yi am na diine yoo xam ne dafa ñëw bi nga xamee ne humanité dafa nekk ci tufuliyaam maanaam ci ndawam diine jooju tolloog xelum nit ak civilisation ak man-manam foofa humanité di mag di avancé ba dépassé jooju diine yeneen xam-xam yi mu yi jàngale woon yi réer xam nga nit ñi amuñu woon matériel bu perfectionné dañ daan bind ci ay xeer di bind ci ay dàkki garab di bind ci ay xob yooyu inondation yi daan ñëw ak lakk daay yi daan tàkk ak rab yi leen daan dàq foof yi ak daay yi leen daan dàq day gis duñ ko mën a yóbbaale ñu daw ci ba fa bu ko defee ndox mi nuural ko yóbbu ko yàq ko wala daay bi lakk ko wala ñu dem ba leneen dikk yàq ko yàlla war a yónnee ci beneen yeneen koy jàngale ak tawxiid fiq moo àtte yooyu yëpp li ci ulama yi wax dañuy war ru'yatuhu nahaaran bil qaabila weer bi bu ñu ko defoon ci bëccëg bi mu feeñ ci asamaan si bu ñu ko jàppee ne tey la feeñ day mel ne bu ngoonee rek ci tax ci timis bi la feeñ. bu fekkente ne tey dañoo woor ak muy mën a am muy xam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la moo xam ñaar fukki ñaar fukki fan ak moo xam fanweer bu ñu gisee weeru moom ci la bokk ba na kon si moom fu mu toll asamaan si asamaan dafa suuf bu ñu ko ci ñu ko mën a gisee ni dañ ci sunu suuf ci sunu suuf itam boo ci dëkkoon barre de fer ba mu àgg ba fëlli foofa asamaan la ñuy gis asamaan la ñuy gis asamaan moo leen fii booba ñoo bu ko defee ñooñu mel ni ñun ni mu mel noonu ci ñun léegi weer wi ak suuxam ak sowu jant bi bu ko jant bi jiitoo tuuti rek lu tuuti rek bu tey xam nga ne weer wi jant bee ko gën a gaaw dox ci ni ñu koy gisee bu fekkente ne weer wi feeñ na tey nga xam ne jant bi tuuti la ko njëkk a sooyee cajëri jant bi làqu mu xaw a lëndëm tuuti mu mën koo gis ndax leeri jant bee taxoon gisuñu ko bu ëllëgee ñi ko jant bi gën a gaawee ko gën a bi dana soog weer bi nag kawe ak bi sax moom ko ndax jant bi a gaaw ci lay gën a fese gën nekk ba lëndëm bi gën a mu gën a fes a mat itam gën a rëy di ko def ba xam ne bu jant bi sooyee day tollu fii di gën a mat di ko def ba nga xam ne bu jant bi deesoo ma nga toll moom génn bi fële ñooñu bu ñu tolloo ci nga xam ne am na bu fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk guddee juróom-ñeent nga xam ne jant bi jotaat na ko foofu la ko a bu ko njëkkee fa ca ñoom weeroo seen bu ñu ko gisagul ñun jant bi daf koy gën a raw bu ñëwee ñaar bi ca ëllëg saa bi gën jamono moom lañ koy kenn néewul fu mel ne màkk wala fu gën bu ñu ko gisee rek war nañoo wóor ci ëllëg sa wala bu ko gisee rek war nañu ko gis déedéet sharia nanguwul tanjim maanaam as si nanguwul astronomie nanguwul météorologie yonent bi salaa sallam dafa ne suumu ru'yatihi wa aftaru ru'yatihi na ngeen seet ba gis ko gis gi itam bu ñu jóom xadis damay wax ne dana nax ñu bari xadis bu wér ak nañ ko war a jëfe dafa am l'islam dafa def tasawur ndax l'islam dafa dikk fekk xeet yi gën a arrière ci xeet yi mu doon arab yi ci jamono jooju mu tàmbale caa yare ba ñu jot xeet yi gën a kawe ci civilisation mu di leen ba nga xam ne fa nga xam ne doomu aadama du ko weesu bu fekkoon ne dafa fekk xeet mu civilisé mu tàmbalee ca kon xeet yi gën a suufee duñ fekk seeni leçon mukk ci lislaam léegi nag yonente nga xam ne noonu la alquran araamale sàngara ji mu di seet a seet ne sàngara dugg na ci di dundug araam ba nga xam ne buñ tëbee ko tere ko benn yoon am na ci ñoo xam ne dana fiis ñoom ba jaram ne leen di sàcc di ko naan mais bu julli jegee jege bu waxtu julli jegee bu kenn mandé ci nga xam ne waxtu julli jegee kon mën nga naan bañ a mandé wala nga naan ba mandé ba waxtu julli jotul mu wóor la ne balay waxtu wooy ko di dem ba keroog bi mu naan innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuuna muy ñetteelu étape bi mu soog koy tere naka noonu itam bu seetee xaddis yi ci bari li tax xaddis benen hadith diko man soxal alquran diko man soxal hadith xadis bi mën na wér ba noppi diko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax jamono ji taxaw mu wax ko mu dem ba lesu ko jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn sam rek nit na ñëw ne ko man gis na weer mu ne ko gis nga ko ba mu mu ne ko waaw mu dal di lañ ko waye nak bu suñu jamono gi dem nañu ba sallallahu alayhi wa sallam saxal yeneen yeneen i condition yeneen i sart yu mën a tax ni way fi nga xamne dafa ubbi téere hadith rek xam-xamam toll ci jàng na arab ba nga xam ne bu gisee ubbee dana xam ni ñu wax rek waaye xam-xamam mayu ko mu feeg xadis yi jàng usulu fiq yi xam xadis bu ci nekk waxtu wa taxoon ak la taxoon am na mu soppi ko ak la ko dindi ak la ko defar xamloo ko doo mën a jëriñ ci xadis bu ñu ci àttee lislaam yu ci bari dafa def tasawur جينا نان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وخي وان تحدث للناس اقضيه واحكام بقدر ما احدثوا من الفجور واي شريج مي خامني موم لا سيدنا علي وخون نكو انت اقضى الحاج يا دق اتي عربي شريج سخلنا اي اتي بام ياغ اتي دي اتي سفانم دم بام ياغ مو دي اتي سفانم بون سيتي كي خامني ميم القران تي بوكم يمو سخالون اي يو خامني دار من توخالوكو سي ني ديغ سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر la ca seen kaw ak ñoom ñëpp dem nañu ba jëfe leneen loo xam ne bokkul ak li aaya ji waxoon wal muallafati qulubuhum jooju nga xam ne ñi nga xam ne dem nañ ba jënd ci lislaam bëgg ko di ko laaj te ñu am yaakaar ci ne daañu tuubi ñu daan leen neexal di leen jox ci asaka yi mu dem ba Sidna Omar te loolu alxuraan ko wax mu ngi ci alxuraan ba tey Sidna Omar ne booba lislaam dafa néewoon doole di neex laata léegi dootu neexal kenn lislaam am na kàttan dootuñu jox muallafati qulubuhum dootuñu leen jox dara te loolu ko waxoon lislaam dafa laaj jàng ba feet ko fekk dañ koy feet da koy jox sa dund da ngay nangoo gëstu da jàng ba sa jàng noppi nga jox ko sa dund gépp mooy tax nga xam ko waaye doo jàng tuuti di ubbi téereb xaddis gis ci lii daal di bëgg a dal ci kaw ay nit ne nangam ak nangam ak nangam du noonu léegi sharia li mu wax rawat na mbirum imam Maalik mi nu nekk moo di ñaar ñu maanu teg ci seen bët wala ñu dégg ko ci ñaar ñu maanu ñu teg ci seen bët wala ñaar ñu maandu gis jële ko ci mbooloo moo xam ne ñoo ca teg seen bët bu dee mbooloo sàkk suñ ca maandu wala mbooloo jële ci ñaar ñu maandu lu mu ci doon boo xamee nag gannaaw nag ci lislaam dafay am xalifa boo xam ne day samp ay qaadi fugaa ci dëkk bu nekk boo xamee ne ñaar ñi nga xam ne nañ gis nañu weer wi ñëw nañu lu ñuy wax tajriix ak taadil dafa am dañuy woo ñi leen xam laaj leen seen jikko lu ngeen leen xam ne ndax maandu nañu wala maandu wuñu ba ñi leen xam saxal nañu maandu lañu bu boobaa xam le nag ne kori war na wala woor war na mën nañ koo defee safara wu ñu taal ci kaw montagne mën nañ koo defee bali sakal yu ñu taal mën nañ koo defee ay tor xolle mën nañ koo defee ay fas yu ñu war di wër takk ca safara naan di xam le weer yi feeñ na loolu xam le rek waaye na fekk ne ñaar bu dee ñaare ko gis sart nañ ca maandu maandu boo xam ne boo amoon sa alal atal leen koo dénk buñ la lebee nga lebal leen ndax leen wóoru buñ la dénk ci sa alal nag waruñu laa doy ci sa diine loolu la mooy islam ci kaw ci kaw tax foofu nga jeexalee ci wax ne alxubaat ñoo daan amu njëkk am na koo xam ne dafa bind ay ay alquran ah di laaj ak ko jot mu ne wa man lam yaxkum bima anzal allah fa ulaika hum kafirun wa man lam yaxkum bima anzal allah fa ulaika hum kafirun wa ulaika hum fasiqun wa ulaika hum zalimun bon mu ne ñett ñooñu yàlla wax na ko ñett yoon ci biir saar bi waaw kon nan mooy àtte ki nga xam ne kii dafa nekk ci réew moo xam ne réew mu layib la ña fa nekk ay julli lan loolu loolu mooy seen àtte fa maa xukmu man yaamal fil ma xakim ñaar ba muy laaj àtte julli bi nga xam ne nangu na ñu àtte woo ko ci àtte yo tribunal yooyu fa maa xukmu muslimin yaxtakimu ila tilka al xakim ñetteel muy laaj la rëbb bi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf ko rëbb ci ni waxe moom réew yi nga xam ne ñu daal wala ana tëdd zakarallah aya ala dawlati am ala muwatin ndax mu ne rëbb boobu sunu wax borom wax ndax ñi gouverner ñoom lañ koy wax wala ñi nangu ñu gouverner leen la xanaa lim ne ñetti aaya daal ulaayikumul kaafiroon hum laayikal fasiqoon hum laayikal zalimun kon foofu rëbb yaakaar naa ne ñëw fi kon nag loolu daal la laaj ñetteelam ñeenteela laaj muy waaw kan kan. eh, nah, kon ñu commencé waat waaw xam lan mooy atte ñi jullit ñi nga xam ne kon dañuy atte woo ci réew moo xam ne rek kii nah, lañ almaani lañ layig lañ daal fii layig islam dafa leeral islam dafa leeral li mu wax jullit ñi muy koor muy kori muy tabaski muy gàmm nit ki na dem rek baam lu ko wóor bu ko lii doyee rek ndax gannaaw amuñu koo xam ne moo taxawee mbir jullit ñëpp di ko àtte kenn ku nekk yaay sa responsable bu bopp na nga fexe ba li nga sukk rek nay lu la doy nay lu wóor loo xam ne ni fi nga ko jële xattan nga faa dénkaane sa alal xattan nga faa leble sa alal mu wóor la li gën a am solo nag mooy ndax naka jëkk dëkk bii daana gis weer yi woor dëkk bee gisuñu ko wóoruñu te mosuñu koo def problème ñaaw ñaaw bi ci nekk moo di bëjoo bu ci nekk ak xasante ak ñaaxante ci biir jullit ñi mooy li yellul mooy li rafetul mooy li jëkkul mooy lu dul lislaam ñii jaar fii naan ñii rajo bi la ñuy wooral ñii naan ñii jaar fii naan ñii sëriñ si la wooral fi ne tijaan la bu ne murit yi sëriñ bi lañuy ñuy wooral dëggul la ko yàlla ak yonent bi wax ak la ko Seex Ahmad Tijaan wala Alaaji Maalik wax jullit ñi benn lañu nañ def seen bopp benn ñoo bokk diine ji te diine mooy li gën ci àdduna nañu yëgoo nañu soppante nañu miinante nañu xamante nañu jàppante seeni loxo nañu def benn bu ëllëgee yàllaay àtte jaam ñi moo xam ka nekk ci yoon ak ka ca nekkul gannaaw li nga tudd léegi ne gouvernement lay jullit bi kon muy jullit bi muy keneen fii leneen mooy responsable bopp boppam na seet li ko doy muy ci te téye làmmiñam mu ci bu nekkee ca la ko doy rek wàccoo nag boppam gannaaw yow li nga nekk bu ëllëgee ci biir bu juree yaa koy jëriñoo bu dëngee ci sa kaw bopp bi lay dal fi nga wax lu dul noonu it te baalu ko bu ëllëgee ngeen daje bu ngeen dajee ñu seet ko kon mbir mi yomb na lu leer la li lu leer la fu ci nekk nga ne jullit nga ak fa nga fa mën a nekk ka nga nekkal lam la wax nañ ko jéem a xam gannaaw bi nga xam ne li yàlla ak yonent bi wax ba noppi nga seet li la day nga nekk ca téye sa lamin te julit bu nekk nga def ko mbokk def ko xarit def ko àndandoo xam ne yéen a bokk lislaam te lislaam yi bu gën jeex am na ñaareel bi ñooñu mooy dana aaya bi wax rek ulaayikum alfasiqun moom ulaayikum alzalimun rek mooy même répétition loolu daal doon laaj ci affaire loolu la doon laaj waaw mooy ñi nga doon leeral rek moom moo xaw na ci jamono yonent bi gaa ñi nga xam ne dañu daan atte wuñ ci taaxuut ak yu la noonu te li yàlla atte ne fii ñu wacc ko fii dem tànn lee ñooñu ñoom ña koy atte woo ñu ñi leen koy atte ñoom la alxuraan xas na xas la mooy saay saay la zaalimoona mooy tooñkat la mooy li mu waroon a def defu ko dégg nga kaafiroona mooy nëbb na dëgg ji muur na ko kafara mooy muur muur lay tekki muur na dëgg ji nga xam ne moo moo mooy ñi dëgg li ñu war a jafe wacc ko fi dem jafe leneen ay xas la yu alxuraan xas ñi nga xam ne ñooy wacc dëgg bi dem dundal leneen taxawal leneen lu dul dëgg ak su ko fi waaye defee ak la mu mën a doon ci forme bu moog loola rek yaa ngay dugg ca biir xas yi alquran xas de xam ngeen alquran moom du xas jëmmi nit ki waaye la muy defee lay xas ba ci boo jàngee sabar yaa abi lahabin wa tabba dafa mel ne que abu lahab moomu nga xam ne nit ku dëng la woon ku bañ rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko ñàkk worma koo xam ne ku yonent bi masaan jaar di waare mu topp ca nan wat len waji bu len ko déglu de ak jabar la daf len beug a day yak seen bopp lim len wax bu len ci deg dara dara ci shaytané la dem ak jabar la def lay nii day def ni day def ni kooku la alquran ni ko xasse képp ku jëf bi jëfi abu lahab ya nga ci bir khaswa abu lahab rek tax ko jop tabbat ila abi lahab wa tabb ma arna anhu lu wa ma kasab sayasla naaran la la tumra'atuhu hamalat xatab min ummu jamil في جيدها حبل من مسد melo ay melo la alquran di nocc jëm ja ko représenté ci jamono booba mu waree ko ca loolu la waaye yemul ci jëmm ji képp ci jëfati jëf jooju rek yaa ngi ci mu mel ne fulaak mu zalim fulaak mu fasiq fulaak mu kafiroon ila axirihi képp ku laaj ne فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا اعطيناه رحمه مولاد كان موي بوب عبد بسم الله فوف مولاد تام آية بعد بسم الله الأعظم لقصة جه فوجد عبد من عبادنا آتنا رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما خمن القصة دي لوسي وسيولة موادي سيدنا خضر ak yonte yàlla Moussa yonte yàlla Moussa ku nekk xam ne ne yonente la bu bokk ci ulul azmi mooy juróom ñi gën a foor Seydina Xadir du woon yonent jaam la bu suñ borom xamal xam-xam bi ñu tuddee al ilmu la bi nii bi Moussa toogee ba suñ borom am ak moom junniy séance yoo xam ne bu ci nekk xamal na ko fa lu dul jeex ba mu gëm ne amul ci kaw suuf kenn ku ko gën a xam mu laaj ci borom ana ko gën a xam ci nit ñi ci àdduna mu ne ko boo ko jël yokk xam-xam demal nga seeti boo demee ca man maul baxre ni am lu suur fi ñaare ci géej gàgg dex ka daje da nga fekk benn sama jaam ci sama jaam yi boo xam ne xamal naa ko xam-xam boo xam ne boo demee nga wax ak moom سيدنا خضر الله سيدنا بقد الله بسيولة صلى الله عليه وسلم سيدي مفصل لنا يقف مينو سيدنا خضر الله من الله بتاعي يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا من خليلا جوج مويلا أكتبان وقت لينك من ينقل على طول خليلا جوج القرآن في المسيرنا ونصفه أو القسمه خليلا أو زد عليه موي يانتو صلى الله عليه وسلم جلي يوار يوار دفعي يوار تبوك du ci keneen farata keneen ko mu mën a doon ngëneel rek bu la neexee def bu la baayi waaye euh, tuyaab bu bare ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak suñu borom nak inna laka fi nihari sabhan qawilan kon kun ma rabbika wa tabattal lahi tabtilan yonent bi suñu borom daf ko chargé ay mission yu diis yoo xam ne bi mu dikkee ci jamono dafa mel ne ko fukki nit la mooy xaadi bi nga xam ne mooy atte fépp fu li ci amee mooy général bi jiite guerre bi te xam nga guerre yi nga xam ne moom si boppam guerre na ko ci bi mu nekk yonent bi mu fi jógee kenn xamul ñu toll bu ci nekk boo koy jiite yi bu mu yeblewu nag moo koy jiite mooy nit nga xam ne mooy waare waare kat bi nga xam ne fu musulman yi toog fu ñu bari muy jamonoy guerre muy jamonoy jàmm moo leen di waar mooy jàngalekat bi nga xam ne alquran moo ko jàngale ba mat di ko tàmbalee ci fatiha jim tàmbalee ba ci suratu naasi lépp moo ko xamal nit ñi moo leen ko jàngal moo leen ko dicté ñu bind ko te ci moom lañ koy tari mooy itam borom kër bi nga xam ne mooy toppatoo këram nit nit ñëpp di toppatoo seen kër ba dara du ko manqué lépp loo xam ne ñi dañ koy liggéeyee ci jamono mu boole ko yépp di ko def boole ko loolu lépp du dox diggante ak yàlla benn tarfatu aynin suñu borom nag ne ko inna laka fi nahaari sabhan tawiran am nga ci bëccëg bi feey feey gu gudd maanaam yaa ngi lab ci biir soxla yi ma la teg nit ñi ngay lijjanti di leen teg ci yoonu jub di àtte ñi nga xam ne ñooy layoo di di xare di yee nit ñi nga xam ne di tontu laaj yi yahud yi di laaj yi nga xam ne ñi ko lënt la dañ la koy laaj sànni ku nekk nga war faa dem leeral la fa nekk seeti képp kuy yàq nga dem fa mm-hmm. wane li muy yàq jéem jéem a fanq yàq ga loolu lépp mu di ak séey bu muy séey ci mbiri àdduna boo xam ne bu doon nitu kese day dox digganteem ak xalaat yàlla waaye loolu lépp mënu la tax mu fàtte wala mu sàggane yàlla lu toll ne rafetal ay waaye lu mu ci mën a doon def àgg gi ci suñu borom maqam boo xam ne kenn àggu fa yàlla tax mu ne am naa ci jamono jamono yoo xam ne laa yasa'uni fii xayru rabbi mu xajowuma fi dara lu dul yàlla am na jamono yoo xam ne xajowuma dara lu dul yàlla nga xam ne ni nga nit ki bu nekkee ci li ko gën far ay nit ñëw di ko yàqal ni ñu koy gérer noonu la lu mu doon rek noonu lay mel ci moom lu dul yàlla rek daf koy gérer ci diggante yooyu nag. delloo ci genn anam ci anam yi nekk digganteem ak yàlla ndax anam yëpp digganteem ak yàlla la woon moo di mottali yonent bi ñu ko yónnee jàngal nit ñi yar leen xamal leen yooyu yëpp rey ñi ñu war a rey dàq ñi ñu war a dàq tiital ñi ñu war a tiital loolu lépp ci yàlla la woon waaye dafa am jamono yoo xam ne dootu xajoo lenn jenn jëf judul xuus ci boromam ba suuf ca loolu dafa cee dugg xumil leena illa xalilan nisfahu أو تخمينه قليلا معنى من النصف قليلا أو زد عليه يكو ورا في القرآن تفصيلا في جلدي لا مهم من أجل هذه نوب كيسيون بي ميو ماي أنا كو بغا دين بارت اه، بو خامني دا فام نينا نوم بغا لاج ولا نوم سي يوك رك دا فام كو خامني دا فا نيت نغا ديفال كو مقارنة في آية بي يالا واخ كومباريز بو نياي واخ ني يعني القرآن مقارنة يعني القرآن إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها والحديث الشريف اعملوا فكل ميسر لما خلق له والفرضية القائلة هل الإنسان مخير أم مسير أو مسير شكرا نتيجة إلى الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الحديث xarit bi اعملوا فكل ميسر لما خلق له doomu aadama yëpp ñu ngi nekk fi xab fi xablati rahmaani luy doomu aadama ak lu dul doomu aadama nit ak jinne ak malaayika ak baahima ak seytaane lépp yàlla ñu la ko téyee lépp ma min dabbatin illa wa axirun binaasiyatiha in rabbi ala sirati mustaqim inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum yonte yàlla Shuayb xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam dafa ne نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم من مبارك يا نتي سمبام داف ليه ديغال ني واتي با تولوك خالي نيت ني غير مانا واخ نيوم يرانت بوبو لي وكيل بيمو وكيل سي بروغام خامني مو ليپ لي سي دوغالام اك سي تيوباريم اك نام كو نامي لاي ليپ دي دوخي تا دا دي فاتش لولو خامنا كو خام غو خامني سوخلا وول مودي كو لا ديكو خاملي لولو ني موي واخال لاي بيغا جانغال نيوم لاي ليرالال ميغا خامني نون لا سن بروم نوتي ci suuf comme niñ noté ci kaw noté ko fépp maanaam daal ila raxu na ci ila raxu mo won ne mom ci koku la baye mbiram mom la baye leppam mu ne ya'malu fa kullu yassar jëf leen kenn ku nekk la nga xam ne moo tax suñu borom bind la jàppandi la na la ko benn yonent bu wax Ozeir dafa mat ne suñu borom tabaraka wa taala waxtu nassar day mooy na bi ko doon soor tëj na ma def na ma jëf yu sew yu ñaaw yu naqari faraxal na ma sewal na ma metital na ma xiifal na ma maral na ma suñ borom ne ko waaw bu géej gi ñëwoon ne la man daal fii ma nekk dafa xat dama bëgg nga may ma place bu gën a yaatu sama ndox mi mën a baawaan bu baax sotti ko aajo woon naa ko te mënul mënul mënuma ko ñàkk suuf si ne la man katuwaay dama xat doo bëgg nga yokkal ma place bu yaatu ndax géej gi rëy na li mu amee ma ëpp lim li mu am moo ëpp li ma am ku ñëw rek ñooñu wax la lay def mu ne ah géej ma ne ko kat ah li xam ne lii moom lañ la moom la la suñu borom wërsëgaloon ci yaatu yaatu war na la doy ndax boo ko weesoo da ngay dem ci domaine keneen nag yooyu suuf si itam moom itam danaa ne ko yooyu itam kat mënu ma laa yokkal dara ndax kon damay fab ci géej gi wala ma fab ci yow wala ma fab ci keneen di la jox te yàlla kenn ku ci nekk joxoon na la mu ne ko waxtu nasar boobu kat dama ko moom it loolu muy def cëram la maa ko jàpp ndilal may ko maa ko may nguurub adduna may ko mu mën a jëfandiku ci yow mën a jëfandikoo ci sa morom loolu ak mayama yàqu ci sa may dara yow itam sama diggante wa li ma la defal te defal nga ko ko na mu dal xam le ne kon waa ji nga xam ne yàlla dafa def mu mën la wala mu moom la ëpp la doole def la lii du caagi ni dafa ba yàlla mënu ci dara mu def ko déedéet yàllaa ko may loolu wàllam dana ko jël ba mu jeex tàkk waaye bu tee sa wàll da ko jël loolu bu la jaaxal yow may nañ la li ñu la may mënu la yokk mun la wàññi ko yàlla pare waaye dafa may sa morom te lim la may nag boo ko yokkee wàññi sa morom te waruloo wàññi sa morom kon moom itam li ma ko may mu war a mën a mbugal nit ñi ëpp leen yàlla may ko loolu lépp nga bëgg koo xañ sama may ko ko xaqam la maanaam ndax maa ko ko may kon ma min dabbatin illa wa ahmu bi nasatiha ak inna bi ala sirat mustaqimin loolu dafa bokk ci lenn ci aspect anam yi zahir yi ñu ko mën a firee dafa dafa yaatu kon doomu aadama bu ci xam yàlla dëgg borom al ilmu labni borom maarifa day xam ne jaam bu nekk am na lu ko suñu borom may même bu dee tooñkat même bu dee ku am lu kenn amul wala mën lu kenn mënul séddale bu yàlla séddale la te bu fekkonte ne jéem dal nañ ko dal nañ koy wàññi ngir jox keneen daan dal def euh, maanaam équilibre bi nga xam ne moom la yàlla def ci bindeef bi ni mbindeef yi ni mu ko bindee daan rompre équilibre boobule te kon aduna bi secret yu bari yoo xamne ne xajoon na dootu xaj yenn yu bari yoo xamne ne na dootu liber yenen yu bari yi nga xamne niko yàlla bëggee won dang ko bëgg won walbati kon nit ki bu xamee yàlla rek day xamne yàlla mo bëggee ni ak borom kër bu momé këram diko jaxati ana keneen ku ko mën a lijjanti kenn mënu ko lijjanti yàlla ni la bëggee aduna bi demé ne ni mu mel la bëggee mu mel ko li la koy tegtal yonente bi sallallahu waxon na yi xew yëpp ba ba saa taxaw kon sun borom arrêté won na lépp ba noppi. daanaka daanaka dugaat na ci xale insaan مخير او مسير واه باتاي لولي تام الانسان مخير او مسير ورانتا و يغ يغ يغ لو ديغنت مؤقت اهل السنه خم ген مؤقت لي اسبيس فيلوسوف لا نيو خامني خل لا نيو وي لو خل نانغول دنجكاي تاويل بان نانغ ريك لا مانا ديمي نينكو مولا ويدي اهل السنه نيوم دانيو غنا سامونتي سنه يونس بي صلى الله عليه وسلم نيو واتا كون اي بوزيشن سي ماتالو يبري مؤقت لي نيوم ني نا ادمه ليبرنا yàlla may na ko kàttan ak liberté lu mu bëgg a def def ko bu dul woon liberté boobu mu am bu defee bàkkaar bu amul woon liberté bu defee bàkkaar yàlla du ko ko mën a jàppe ndax dañ naan ko da yàlla ko ko sant sañu koo bañ te kon tuyaaba ji mu amit ci def ju baax bi dañ naan ko yàlla la ko sant sañu la ko woon bañ amuloo ci benn mérite waruloo koo def noonu la mu tëjee wax ñu ne nag yàlla moom gannaaw ko maandu la may na doomu aadama bi kàttan goo xam ne lu mu bëgg a def na koo def lépp a ngi aju ci kàttanam ndax yàlla jëfi doomu aadama ci waronteem la ko sàkkal xel sàkkal ko kàttan sàkkal ko ay cër sàkkal ko xol mu am ay bëgg-bëgg am ay bañ-bañ di yëg métit di yëg kiis di yëg mar di am bànneex loolu lépp am na benn jigéen buy laaj mu ne ndax jëkkër ma naa ramm jabaram ndax alxuraan indi na ci tegtal loolu sax de gaaw fekk ne ma nekk ci biir laaj boo xam ne tàmbale naa ko waaye ba tey loolu lu intéressant lu ma def amul sikk gis nga ku jàng bu baax lislaam da nga xam ne xarit tax ndey dana rammu doom doom dana rammu ndey jëkkër dana rammu jabar jabar dana mu jëkkër mag dana rammu rakk rakk dana rammu mag kenn ku nekk am na daraja joo xam ne boo ca àggee wala la la yàlla may wala la la yàlla rusee mën na laa rammu ku jàng alxuraan jàng hadis xam nga rammu moom lu ama am la hadis bu la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali nit ku nekk àjjana sëpp xool waa safara gis te koo xam ne ku ko xam ku ko xammee la woo ko ne ko ndax xam nga ma mu ne déedéet yow de bis sàngam dox nga ba mar nga fekk ma ci kër sàngam nga ñaan ma ndox ma tànk ko ma ko ndox may la nga naan ba mandi ndax doo ma dimbali nga ñaanal ma sa borom comme yow gërëm na la ba dugal la ci këru teraanga ji ndax nga sarax ma defal ma ko ndax mu génn ma mu ne ko ah coobaral suñu borom nag mooy mën a not lépp dara mënu koo wëlbati suñu borom moom lépp lay dégg mu ne ko ah ci teraanga jooju nga ko defaloon te muy sans soppe génn nañ la génn safara nga ñëw àjjana loolu nagam loolu day am yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk li na toog na mu yàgg mu ree ñu ne ko looy ree yow rasul yow yonentu yàlla bi yàlla na suñu borom reeloo sa bañ mu ne yow xiyaan jàm boo xam ne dafa taxaw ci kanamu balance yi ñuy peese jëfam borom xaq yi ñëw di laaj seeni xaq muy fay xaq yi di fay di fay di fay ba deseetul dara benn waay taxaw ne ko amel nga ma xaq joo xam ne faaw nga fay ma ko mu ne ko deseetuma dara nag dara laa deseetul fi ma nekk moo ñu ko ne suñu borom kii ni ma fay suñu borom ne eh, waa ji yow fayal kii daf la amel mu ne ko ah, man de wax dëgg yàlla amatuma dara sama mu ne ko waaw amatul dara mu ne ah faaw mu fay ma de man baaluma ko ko suñu ne ko téenal moom miy fayu mu téen mu ne ko loo seen mu ne ko réew yi rafet yi ma seen ak kër yi ak building yeeg gratte-ciel jardin yeeg rafetaay beeg xet bu neex beeg yooyu daal moom waaw ban malaayika mu mu tedd ko moom wala ban yonent bu la jege moo ko moom mu ne ko loolu dama koy jaay rek ko mu ne ah loolu ko am njëgam mu ne ko yow mii mu ne ko man man am naa njëgam mu ne ko waaw man mi deseetul dara dañu topp ma am ñu borom xaq yoo xam ne amul lu ma leen fayee mu ne ko njëgam daal mooy nga baal sa sa morom mii sa mbokk mii nga amee ameel xaq te mënuloo koo fay mu ne ah bu ma ko baalee moom kër gi ko waaw waaw mu ne ko baal naa ko mu ne ko jàppal ci loxoom ngeen dem àjjana kon yëmëre suñ borom yaatu na yaatu boo xam ne wa rahmati wasiat kulla shay'in fasas subhanak lilladina yattaquna waaye dafa baawaan dafa baawaan ram ku koy sikki sakka borom xol bu gumbo nga alquran saxal na ko hadis saxal ko ram nag du lenn lu dul ku àgg ci foo xam ne daraja joo xam ne suñ borom sopp na la wala gërëm na la terale la nangam حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأي بوكو جانجي وفيه قال النبي عثمان يشفع في سبعين ألفا وكل حقه نار النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مو وحني عثمان كرو يوم الخيام جيوم نعطيك جنين نيو يوحمد كسينا كسفر يين على تلا وارد دقو دانا لين ربو أمير عثمان دوم جندي جوم دو أي أيوة، واجرم جرم تخدم رمو دوم خم خم يدعني رمو جامو كسي يالي يدعني رمو malaayika yi daañu ramu yonent yi taxul ñuy wax awliya yi daañu ulama yi daañu ramu ñoo ñëpp daañu ramu lépp ñu ngi saxal la ci ay ahadis loolu mu amul benn si ki sàkk jëkkër ramu jabaram du dara sàkk nag jëkkër jabar bari na ay lëj lëj yu si nit ñi di ko waxee noo xam ne demee wuni lu mat a leeral la jaamu jëkkër kenn du ko wax jaamu moom yàlla dong lañ koy def lu ñuy def jëkkër topp ndigalam topp ndigalam nan la demee lu ñu war a xam ne jamono jii ñu toll njaxas li bari ñu ne jigéen ak góor a yam ñu ne ñoo yem xaq dëgg la sax ñoo yem mosu ñoo ñàkk yem l'islam daf leen may man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun la wax ku jëf jëf ju baax rek ngay góor ngay jigéen fala mu xiyan wa hayatan tayyibatan daanu ko dundal dund bu neex alakhirah te daanu ko fay la gën a rafet ci lam jëfoon fay ba gën a rafet lan la ñun dellu ci xaq xaq yi wajur lu diis la xaq jëkkër noonu la demee sallallahu alayhi wa sallam nee na góor gi bu amoon ay góom ba yaramam daj soxnaan si ñëw di ko mar ba mu set sax du tax mu jot xàqam boo gisee ca ba jaam bi am ñu naan jaam bu liberté lu mu jaamu jaamu yàlla yi day dem laaraaf waaye du dem àjjana li ko waraloon moo di ji am boo xam ne fas fas dawalul jàpp ko du ku ñu ëpp doole wala ku ñu sàcc loolu ba jihaar di am ñu jàpp leen ci xare la ndax ñoom ñoo attaqué jullit ñi faat ci ñoom ay bakkan ya yóbbu seen jamono seen temps bu bari yàqal leen lu bari yàq seen mbay yàq seen commerce rey ñoom ay bakkan ñu gañe leen ñu war a def lu ñu wax rançon de guerre indemnité de guerre ñu war koo def ñu jàpp leen yóbbu ngir seen avantage ndax bu ñu jaxasoo l'islam tuub muy seen njëriñ te suñu borom sant ñi am jaam yi ñu def leen ni seen mbokk bañ leen a teg lu leen at bañ leen a réeréelu ci seen kaw ñu ne nag xàq jooju nga xam ne ki ko jàpp ca xare ba moom wala mu jaay ñaqam ba ja ba ak bakkaram ba jàpp ko wala mu jënde ko alalam mu dal di féppéerlu lu mu ko sant mu lànk wala mu dem yoonam xaq jooju te fayu ko ko ba mu daatante wala mu waxaale moom ba la nga xam ne ci lañ jiboo pour mu jox ko mën a liibar defu ko xaq jooju mooy daf mooy gëm mooy xaq ji nga xam ne moom la doom ji amel waay jur wi mooy xaq ji nga xam ne moom la jabar amel jëkkër ji jabar ji nag am na avantage boo xam ne jëkkër ji amu ko kon jigéen am na avantage bu góor amul góor dana naafila ba bëgg dee xamul yàlla nangu na ko xamul nangu ko dana def ay farataam muy julli muy koor muy li mu doon xamul yàlla nangu na ko xamul nangu ko yonente bi salaa dafa wax ci xadis ne ida sallat almaratu xamsaha wa saanat shahraha wa xafizat nafsaha wa ataat zawjaha فتحت لها أبواب الجنة يوم القيامة تدخل من أيها شاءت جيجين بجلي جلي جرومم ووير كورم واتو بطم خمجين لم تجبلو topp jëkkëram bu yomal xiyamé ba tar yi metti taxawaayu jam ñi yàgg rek tiis jankon ci nit ñi ñu ubbil ko bunti àjjana mu tabbi bu ko ca soob koku góor amu ko jigéen rek ko am waaye fo fek avantage en ko nga ñaan di jàkkaarloo maanaam foo nit ko xam am na ngëneel am na lu ko tiis ci bopp bi modi sa morom do adama nga top ndigalam lolu ci bu fekkene dana top mbiru liberté ak égalité yoyu bu suñu ko mëna dégg waaye wax yàlla moom moo moo privé lépp moom moom jaam ñi te moo wàcce alquran kon li muy wax faw mu jàpp ko jigéen ji du jaam ni mu ni góor gi amee xaq moom it la amee xaq boo seetee tax ne ay xaqam moo gën a jafe xaqi góor gi ndax góor gi moom la yoon teg lépp lu muy dundee lu jigéen ji dundee lépp lu muy woddoo soxla yi mu am moo ko war a faj ba ci sax bu amee jaam moo ko war a yónnee jaam bi mu duggal ko marché wala xale wala mbindaan mu koy fay mu war ko fay mu di ko duggalee marché moo ko war a garanti itam ci danger bu mu mën a doon bu koy gete gannaaw loolu itam war na koo wormaal wormaal ay waajuram ba ci sharia sa jabar boo ko saaga ndey wala bàyyi yoon tas na sëy bi bu demee ca xaw bi ñu tas ko waxtu feebare yaa ko war a faj waxtu amee soxla soxlaam sa soxlaa nga jàppe ko ni nga jàppe sa bopp wala nga jàppe ko nu ëpp ni nga jàppe sa bopp ni nga ko war a terale war koo terale ay waajuram moom itam mu war laa fonk war laa teral war a terale sa ay waajur loolu mooy tax dund gi neex boo gisee l'islam toléré li ñuy wax polygamie l'islam deful lu dul toléré mais santaaniwul du obligatoire du obligation néewul na nit ñi weesu ñaari jabar wala ñett wala benn wala nangam déedéet dafa toléré rek ngir loolu te mu ngir yu mel noonu suñ ko seetee liberté yi bari trop l'islam nag dafa def nit ki bu tolloo ci diggante xam ne ay circonstance day am bu amee ba nga xam ne lii mun loo koo ñàkk defi teg na ci ay charte na fekk nga man ko te doo lor ki fi nekk na fekk muy loo xam ne dafa war ci yow na ki muy loo bëgg fekk tam muy loo xam ne lii kat yow am na xarab maanaam but bu tax nga def ko charte yooyu yëpp na mat nga def ko te bu bu bu fekkee nañ nga tëlee ko boo ko defee ci lu xaram nga nekk boo a itam ñaar mu am lu ko waral ba nga def ñaar nga wees ko dem ci ñett ngir sa topp sa bànneex bopp it da ci am bàkkaar ba ba muy àgg kon l'islam dafa prévoir lu ci doon li ma waxoon sànq ne bato bi prévoir nañ lépp lu ci am yàlla mi xam jaam yi xam seen biir ak seen bitti xam yàqu-yàqu yi ak la koy saafara moo def waaw yi xam nañu li ñu tuddee incompatibilité de l'humeur d'humeur incompatibilité dafay am ci ñaar ñoo xam ne yàlla def na mënuñoo jubóo seeni tempérament maanaam seeni jikko mënu la ànd loolu l'islam prévoir na ko buy jagg prévoir na tam jigéen ji am tollu tolluwaay yoo xam ne tële lay doon am tolluwaay yoo xam ne jikkoom moo koy man moo koy giir góor gi itam am melo woo xam ne dana naqare supporter tout le temps wala mu am liggéey yoo xam ne dana soxla ñu koy jàppale yooyu yëpp lu ci nekk dana waat xam nga buñ seetee ne bu demee ci kaw gi ci jamono yu passé xam ne machines yu bari yi ñuy liggéeyee ak ñuy bayee ak yi amul woon mën nañ ne polygamie am na raison d'être même bu fekkee ne dañoo dem nit ci teeru gi am na loo xam ne polygamie day nekk un bien fait social mu dem ba jamono dana am ci jamono ci yenn ci réew jigéen ñi bari jigéen ñi néew jigéen ñi bari góor ñi néew nga gis koo xam ne dana toog ba màggat mel na mu war a mel bu am kenn ko takk ndax góor gu nekk am na soxna te sañuloo kee sañuloo ko ñaareel kon polygamie un bienfait social lay doon bu am solo foofu rawatina bu fekkee si nag góor ñi ci réew moomu dañuy takki ay soxna ci yeneen réew ay naar wala ay tubaab wala ay ba ay xaasoon sa ci saraxu lekk yooyu jigéen ñi bari bi ñoom ñëppay taxawaalu mu jur musiba l'islam daal buñ ko étudier ba étudier ko lépp bépp xalaat bu doomu aadama xam ba ne daf koy imposé ngir njëriñ wala ngir benn avantage wala ngir résoudre benn problème l'islam ko ci jiir dañ koy jàngul nag xamuñu ko jéem ñu ko seet loolu rek a ci nekk jërëjëf ah comme gannaaw ñu organisé euh, waxtaan yi nee nañ deux heures lañ bëgg a seen waxtaan ndax may borom waaw ah, une heure ak hmm? waaw léegi waaw léegi suñu sax xaw na sonn dafa amoon suñu mbokk boo xam ne yoo xam Mouhamadou Lo daf ci bëggoon def participation ci waxtaan bi bu ko defee itam ñu mën a mayaal sëñ bi mu noppalu tuuti bala ñoo jëlaat juróomi laaj wala juróom benn sëñ bi mu leen wala man leen ma ñaan bokk benn laaj ñu jox ma ko rek libéré ma ndax dëgg-dëgg aw ma temps tey euh, non seulement sonn naa waaye aw ma aw ma temps indi benn laaj benn laaj rek ma tontu daal di dem. waaw comme ci loolu kon benn laaj boobu nga nu may dafa am benn waay boo xam ne daal nee na moom am na njuumte goo xam ne gi daal defoon na ko xëy na ci weeru koor bi la wala leneen nu dul noona ci biir loola nag mu ngi woor ay mi ngi ci ñetteel bi fanam di woor mu ne nag mu bëgg nga digal ko tey fas na yéen itam loolu mu defoon dootu ci dellu. mu bëgg nga wax ko loo xam ne de moom bu ko defee toujours itam dana tax sun borom gën ko jégal ay bàkkaar wala ñaaw teefam yooyu ak koor gi yëpp bu fekkee na nga am ngant ko moom ngant ak doomu aadama ànd ajmul ci sa coobare da ngay fay rek amul sax bàkkaar doo ci jégalante bu dee yaa tey dog nag ak na nga mën a rek ba sa koor yàqut te muy loo xam ne du ngant yaa ko tey wala neex rek nga def ko kaafaara daf cee daal di war kaafaara gi bu àggee tuub jégalu daf cee di war a fan laaj na kaafaara ak jéggalu jéggalu moom xam ngeen ko tuub moom ñetti sart la am li nga defoon na ko rëccu mu naqari la bu si yéene dootoo ca dellu mukk dootoo ko defati loo ci mën a dabaatal itam nga dabaatal ko kaafaara nag xam ngeen ko kaafaara ñetti xeeti kaafaara moo am bu ci gën a jëriñ nit ñi rek moo gën kon bu ci ëpp ñi ñi mooy nga lelee juróom benn fukki miskin yi nga jox leen ku ne muur waxuma saar muur mudd nii boo ko mënul nga goreel jaam te ba jaam jaam kooku xam naa ne mën nañ ko éliminer bokku ci ndax boobu itam moo ci tegoon ndax njëriñal nit la mën na am njëriñ bu mujj bi mooy koor gi woor ñaari weer ñu toftaloo nga xam ne boo dogee ci diggante bi da ngay tàmbaliwaat da ngay sosaat kooku moom yow rek lay jëriñ yow mi woor waaye jëriñul beneen jaam moo tax ñu mujjee ko kon kaafaara boo ko defee ba noppi nga tuub nag jéggalu bu fekkee nag bi ngay dog ngant taxoon wala lu mel ne tawat wala tukki wala yu mu doon ah soxlawul sax tuub ndax du bàkkaar ndax suñu borom la ko teggil nu ko waxee ci aaya ji faidat min ayamin oxara da ngeen di fay rek dégg nga fa man shahida minkum shahra فليصومه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدته kon mbokk yi ngeen jéggal ma ma tàggu leen dem ci yeneen i itte waxtaan wi melul na ma ko bëggee ndax wéruma te toogaay bi xaw na yàgg ci man sonn naa am naa it yitte yu bëri tey sax dama gëmoo nit ne waxtaan wi du am ndax dañ ci amoon beneen programme programme boobu yàlla fank ko ba tax na itam teewlu xel ga ma ci waroon a teewlu itam na ma ko bëgge woon aw ma ko waaye ñu sant yàlla ci ni mu jàppandil ba nu def ko léegi li ñuy dénkaani mooy di jullit ñi rek bu ñu fàtte seen bopp ndax ku fàtte sa bopp yàlla fàtte la yàlla du du la fàtte waaye daf lay fàtte fàttal day mel ne ku la fàtte kon nag nañ nit ci jiital diineem ci li mu doon na yéene bokk jullitam mu mu doon rek li mu yéene boppam na xam ne àdduna du dara ku la ko ëppale taxul mu ëppale la dara ngëneel yomal xiyam lay feeñ te bu boobaa amul luy jëriñ jàmbi illa man bi qalbin salimin xol bu mucc rek bu saxal tawxid mooy jëriñ këram doomu aadama jëf gi rafet rek ak ngëm moom la jaam dina rawee moroom keroog nee ñu tàyyeel jarul ñàkk bànneex jarul gàcce adduna jarul àllaaxira ñett ñooñu ku ci jëlee benn lenn ci ñett yooyu rek da nga toog bëri ci ko yàlla ku ko jaamuwul ak lu mën a tee nga jaamu ko danga nga toog ba xam ne moom rek ay buur te da nga rëcc loola le te loola taxoon jaamu woo ko ngay gën a bañ ci adduna sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom ci jaam ñi ku ko xamul tey da ko xam ëllëg الاسلام موي دين جي يالا نانغو ان الدين عند الله الاسلام نانا وما يبتغي غير الاسلام دينا فلم يقبل منه كو ساكو جينن دين جي الاسلام دين كو نانغو موك يوم القيامه تا نانا غا نيغا خامني جاد نانيو يونو با توي بو ألجي لو فيس توف سي تي وورو سا خالص ني بوكو جابي سين بوك نيما كو واخا وون تانك سون بروم بوكو نانغو دي ملء الارض ذهبا نكو نانغو تا بو كيوغي كيب كو خامني جاكارلو غا نوبل مو وور ني سي نجم da nga bëggoon ñu fab sa ndey ak sa baay ak sa doom ak say xarit ak sa najaay ak sa baay tax ak sa mbokk yëpp ak ñi ci adduna ñëpp ñu sànni leen ca mbugal ma sa nga mucc bi doon donte da ngay toog jamono ak heure boo xam ne bi doo lakk ñu ne ci safara xam nga ne foofu tiis na foo xam ne buñ ne la woon ñëwal ñu fab sa ndey sa baay sa doom say xarit say jege ñaale say am di jàmm ak ñi ci suuf si ñëpp ñu sànni leen ca te nga mucc nga nangu boo ko gënee booba tiis na trop